asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibi yi gannaaw bu nu sante yàlla jullit yi sayyidina Muhammad alayhi salaam ñu ngi di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam gannaaw bu nu amee ndigal ci ki nga xam ne moo fi nekkal Seexul Xadiim muy xalif général de si sëñ Sidil Muxtaar yàlla na ko yàlla yàggal te may ku wér jaar ci rakam ju baax ja Serigne Mamor moom Serigne Mouhamadou Mourtada yàlla na ko fi yàlla yàggal moom it bam li mu yéene liggéeyal maam ju baax ja mu liggéey ko jaar ca ku baax ka di sëñ Mouhamadou Xabaan moom Serigne Fallou su ngeen gisee nag ñu tàmbalee foofu moo di foofu mooy yoon wi am nag lu xew fii ci Paris loo xam ne lu ne xew na fi waaye lii nag dafa am mbokku taalibe koo xam ne sii Sidi Ndiaye ànd ak mbokki taalibe yépp fas ne taxawal génn guddi goo xam ne gi daf ko tuddee guddi sant Serigne tubaa guddi googu nañu ci woo mbooloo mu jullit guddi gi kañ la mu ngi doon incha allahu le 13 mille quinze bii nu nekk kon na ko ñëpp bàyyi xel bu ko kenn fàtte ma di leen fàttali ne fii dëkk bii nu nekk tey bu fekkonte ne ñoom li ñu bëggoon amu nan ko kon du mën a fii tey di bu mel nii kon ñi ngi woo góor ak jigéen mag ak ndaw murit xaadir tiijaan laayeen bàyyi wunu kenn kenn kenn kenn di mboolem boo woo mboolem daayira yi xam itam ñoo nekk fii ànd ak nun liggéey bi danaa ci tudd nag ñennat waaye ñenn ñi yenn daayira dama koy bàyyee seen njiit ak seen i njiit ndax xam ngeen ne mi ngi fi mooy wax ci turu bi sëriñ Samba Thioune mi ngi fi mooy wax ci kër sëriñ Fallu ñu ngi woo waa Daaru Xuddus gépp daayira si Mourou Moustapha di woo itam waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gépp di woo itam waa kër sëñ Abdou Lahad gépp di woo waa kër sëñ Abdou Khadir gépp bàyyiwunu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw foofu waaye mën a nekk daal na la wóor ne le très soin bis bii nga xam ne moom la sëñ Sidi Ndiaye taxawal sëñ Sidi Ndiaye xasida ñëpp xam ko te ñoom kat bu ñu wootee warees na leen a wuy si ndax li ko waral mooy kuy woo ñoom ñoom ngay woo kon ñi ngi woo itam ñi nga xam ne ñooy waa kër Serigne Cheikh Béthio nga xam ne dañoo sopp sëñ sëñ lool te di ko jàppale di itam waa bi isnillaahi muy waa kër Ceerno Abdourahmane Boggal ak mboolem suñu bokk tijaan yi nga xam ne yi ñoo fi nekk ak laayeen yi ak ñaseen yi ak waa cene ba bàyyiwunu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw du ma wéy nag di guddal ndax ginnaaw damaa nekk samay jëwriñ ku mel ni Alaaji Jibril Jóob nga xam ne mooy jëwriñu jamiya bi kon maa ngi koy bàyyee kaddu gi moom mu woote ci turu jam bi bi nag bis bu rëy la ñu ngi koy defee fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi kër sëriñ Tuubaa gii nag mooy kër goo xam ne képp kuy wax asadu an laa ilaha illa allah wa asadu an muhammadan rasulullah am nga ci cër bu rëy boo xam ne yow kenn ko moom bokkoo koo kenn boo ko jël si jël si sa cër boo ko jël si wul itam cër bi nekk si moom di la fi xaar waaye kër sëriñ Tuubaa daal kërug lislaam la woo nañ ci ñëpp nag woo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw fépp fu jullit nekk te ne ci France gii yaa xam ban ban dëkk nga nekk bisub boobu bu ëgsee na ngeen jël lu ngeen mën a jël ci ay moyens léegi mu ñëw andi ci bis bi nu bokk yendoo bis bi di ci santale yàlla ni xaalim ni sëñ Sidi di sant yàlla di ci sa jaare ko ci buntu sëriñ Touba nu àndandoo di ko ko sant ba ca ngoon nga nu ànd dem ca saal ba xasaay inag di fa jolle ba jant fenk guddi gii ñu ñuy waaj def nag yàlla nañu ci yàlla defal loo xamante ni bii nag danu ciy gis yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Momadou Fadel mi ñu ciy def te bañ cee gis sunu bopp yàlla mi nga xam ne moo man tey def lu ko soob ci ku ko soob yàlla na nu jubal jubalal nu woo nañ ci nag képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah woo nañ ci nag képp koo xamante ni bii rek sa bopp féete na ko say tànk féete suuf te nga sopp Serigne Fallou ndax Serigne Modou Bousso de yàlla na ko yàlla doo leer nee na Serigne Fallou amul ay taalibi ay soppe la am kon nag woon nañ ci képp koo xamante ni bii soppeeb sëriñ fàllu nga mooy tubaab muy naar muy lu man doon rek woo nañ la ci nga ñëw jàpp leenu ci ñu bokk liggéey ngir yàlla ak yonent bi sëriñ Tuuba nu am ci ngërëmal cheikh mouhamadou fadal allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax ci ndigalul cheikh sidi al muxtaar xalifa général kullu mulit di leen ziar ci ndigalul Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général kullu Baye Fall di leen woo ci bis bi nga xamante ni si sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul la ñu koy def fii ci Paris la 13 juin incha allah te Serigne Sidi Ndiaye xasaay di ko taxawu fii ci Paris ah di ci woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taaliba yëpp rawatina sama mbokki Baye yi nga xamante ni si dañoo fare fii te fare liggéeyal Cheikhul Xadim nga xamante ni si Serigne Ndiaye dañu see jox cër bu rëy muy lépp loo xamante ni si dafa jëm ci wàllu organisation bi daf koo teg ci suñu loxo loolu nag nekk sas woo xamante ni si donte ñi fi jiitu woon daan nañ ko def waaye moom yi dafa ñëw feddali ko kon ñu war a gën a jaaju ci liggéeyal cheikhul xadim bu baax a baax a baax a baax a baax kon di ci soññ mbokki Baay Faal yépp di leen woo te képp fi ñëw ñi ngi ñaan nga ñëw fi te teew fi teewaayu murit népp noo xamante ni si ab murit daal bu koy waaj noonu lay waajee na nga ko waajee ca bis ba ñëw fi te xam ni ah ku fa ñëw ku ne day mën nga faa daje ngërëmal cheikhul xadim di leen ci woo bu baax a baax di leen soññi li nga xamante ne si mooy liggéey bi lu jëm ci waañ wi lu jëm ci euh, salbag yépp na nga xam ni Baay Faal ci seen loxo lañ ko teg kon dara waru faa manqué te dara fa dara waru faa mel nan noo xamante ni si méngoowul ak war mooy euh, Cheikhul Khadim kon ñu ngi leen di woo bu baax a baax di leen soññi bismillahi rahmaani rahim jërë ngeen jëf mbokk yi fi jaar yépp kon ñoo ngi am bés bii nga xam ne ni ko mbokk yi waxee ñi ngi koy woote le 13 juin incha allah di ci woo nag bépp mbokki taalibe boo xam ne yaa ngi biir Europe wala ci àdduna bépp ba Sénégal waaye suñ mbokki autorités itam kenn demul ñu des ndax ñoom ñoom ñoo la ñu war a jiital ci lépp di woo ki nga xam ne moom la suñ borom teg ci euh, boppu ambassade bi muy Serigne basiiru seen di ci woo itam Amadou jàll consul euh, di ci woo itam euh, madame Mbacké soxna Awa Diop Wisconsin ndax bés bi itam bésam la ndax bésu Serigne Fallou la di ci woo mbooleem ñi nga xam ne autorité lañ te nekk ci réew mi ak bitim réew ñi ngi ci woo ñëpp. ñu xëyee ci suba gi dinañ fa amal njàngum alxuraan ci njiitul suñu imam Serigne Bousso be Bousso dina ko jiite incha allah dinañ fa amal it ay bernde xéwal bu ñu xéwloo nag ba ca ngoon nga ñu ànd ñun ñëpp dem ca saal ba suñu mbokki baay Fall yi ñooy ubbi liggéey bi ndax xam nga Cheikh Rafal da cee am wàll. bu ñu demee ba ba ñu noppi itam cérémonie officielle danañ ko fa amal bu ñu noppee ci cérémonie bi itam ay boroomi xam-xam yu suñu boroom dimbali lañu ci sëriñ bi ak xaside yi dinañ ñu waxtaan te xam ngeen ne guddi gi guddik sëñ Fàllu la dina am itam boroom xam-xam boo xam ne dina ci tànn thème bi waxtaan ko ci bu ñoo ñu jeexalee itam suma mbokki jàngkatu xaside yi nga xam ne yàlla dogal na ñoo bokk métier mi ci njiital sëriñ Paate Mbaay danañu jël micro bi itam fanaanee jàng incha allah ba bët set gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant sëñ Sidi Mokhtar Mbacke ak sëñ Cheikh Jamb Fall suñu sëriñ ñoo ngi woote nag ci bis bu tedd bi nga xam ni mooy première édition sëñ di Ndiaye ak mbokki taalibe yëpp bokk ko di ko def muy le 13 juin 2015 euh, di ci sant sëñ Touba ak sëñ Fallou Mbacke ñoo ngi ci woo booloo mu jullit di woo mbokki taalibe yëpp di woo daayira yëpp daayira yi ci Europe yëpp ñu ngi leen di woo di woo daayira ci biir France yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bu tedd bii ñu jàpp si liggéeyal ci sëriñ yàlla liggéeyal ci sëriñ Touba. ñoo ngi woo nag képp koo xam ne taalibe murit nga nekk fii ci France ci bis boobu bu ko kenn tardé dinañ fi wàcc kaamil dinañ fi defi bernde eh, pour pour taalibe yi ñu ngi woo it kii nga xam ni mooy suñu sëriñ di suñu xarit di suñu xalifa ñu di ko wooyee soxna Baali Muntaxa ñu ngi koy woo ci bés bii di woo képp koo xam ne rek taalibeb sëñ Tuubaa nga te nga ne fi ñu ngi lay woo ci bés bi ñoo ngi sant yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi di ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñu fekke ko te tal ko te mu ànd xéewal ñoo ngi ñaan yàlla defal ñu ci jàmm defal ñu ci sutura ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamina di ci woo ñëpp di ci woo waa Serge buñ jàllee ba senegal ñoo ngi ci woo suñu kilifa suñu mag soxna Seynabou Thiam di ñaan yàlla bis bi ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamina kon yal nañu yàlla may ñu fekke ko ak tal yàgg ko di ko def ci barka nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag bés bi dañ ko tuddee sëñ Fallou ak na ko sama sëriñ ba daan waxee di ko waxee ba tey muy sëñ Fata Falilou dana gën a baax yàlla na lépp gën a baax. ñoo ngi ñaanal sëñ Sidi Mokhtar mu yàgg fi te wér maa ngi ñaanal sëriñ Mamor Mbacke ibnu Cheikh Amadou Moutada mu yàgg fi te wér. bis bi nag li ñuy woote sëñ Sidi Ndiaye xasida mu ànd ak mbokk taalibe yi nekk fii France di woote bisu sant Serigne Touba ñu di ko tuddee Serigne Fallou Mbacke ibnu Xaadim Rasoul bés bi nag ñoo ngi ciy woo daayira yi nga xam ne ñoo nekk fii ci France di ci jiital daayira nooru daayira ni bu soxna Baali Muntaxa di ci woo soxna Baali ak daayiraam di ci woo daayira bu fusti ci njiitu soxna Maam Fall di ci woo daayira fusti bu reen ci njiitu Nogay Fall di ci woo daayira fusti bu Nant ci njiitu soxna Faama Fall di ci woo daayira yi nekk bi nekk Belgique daayira maam jaara bu Belgique di ci woo daayira maam jaara bu bu bu lekko ci njiitu soxna maam jaara Guèye di ci woo daayira maam jaara yi nekk itali yëpp di ci woo daay yi nekk Allemagne ak Belgique ñoo ngi ciy woo nag mboolum jullit di ñaan yàlla ñu fekk ko ci jàmm ci barke Serigne Touba Xaadim Rasool ñoo ngi woo soxna yëpp ñu teel a ñëw ca bés ba te jekk bu ñu ñëw muuru ba jekk yore kurus ñu saxoo bi ci barke Sëñ Fàllu ñoo eh, bi jàppal ne boo seetaane lii mooy sa woote ñi ngi woo ñëpp ñi ngi woo ñëpp ca bés bi di ñaan subhaanahu wa taala ñu daje ca ngërëmal Serigne Touba jërë ngeen jëf mu'jammatan wal kaafu warraawu lirraa'i wal baa'i wa huwal baa'u warraawu